centraux mhm. alors dañu koy dooree ak euh, euh, TER bi euh, maa ngi naan TER BRT bi nga xam ne ni tàmbali na daw ni ki tey gis nañu problème yu bari yi nga xamante ne sénégalais ñu ngi koy jànkoonteel ci wàllub transport tey ji la TER ba tàmbali di daw. waaye itam mu am ab tweet boo xam ne ki nga xam ne nii euh, moom moo di El Malick Ndiaye nekkoon jamono boobee chargé euh, de euh, secretaire général ci wàllu communication ci biir parti Pastef am kàddu yoo xam ne nii yëkkati woon na ko daanaka mu nekkoon ay critique par rapport ak li nga xamante ne nii moom moo di BRT bi gis nañu tweet bii nii nga xam ne daanaka mi ngi sur les réseaux am ñoo xam ne daal dañoo jàpp ne dafa am contradiction ci ñaari wax yi nga xamante ne nii wax na ko Euh, bu njëkk ba ma nga doon wax ngeen baal ma de mais BRT terre vedette hélico ne réglerait pas le problème encore une fois notre vision est très limitée Johnny Johnny et vous avez un réel problème avec la priorisation euh, des besoins développer les pôles régionaux et Dakar se videra naturellement euh, ci lii ab tweet la boo xam ne defoon na ko le 28 10 mois 2019 donc bii tweet mi ngi ko def Euh, ni ki euh, démb di wax ni découvrir bon reprendre ab tweet boo xam ne ni page bu BRT bi def na ko di wax ne découvrer loof de service initial de sunu BRT de la station Papa Gueye Fall à la préfecture de Guédiawaye nos bus BRT 100% électriques offrent confort et sécurité un personnel attentif sera disponible pour assurer un service de qualité à tout no clients dafa mel ni ba tey euh, soxla na ñu leeral ci ñaari taxawaay yooyu noonu ak li nga xamante ne ni moom moo di euh, BRT bi ñaari euh, tuuti bi nii ak kaddu yi nga xamante ne nii le ministre El Malick Ndiaye yëkkati na ko ban analyse nga si mën a def pour que nit yi comprendre lan mooy vraiment justement la différence entre ñaari personnalité yi nga xamante ne ñoom ñoo wax ak li nga xam ne ni moom la ñu wax. waaw xam nga li nga wax solo parce que euh, dafa am ñaari communication. Mm-hmm. Euh, communication politique ak communication institutionnelle. Mm-hmm. politique bi mooy li nga jot li nga njëkk a wax et boobu c'est un pire opposant mhm. moo doon wax ak euh, ñi mu jàpp ne ce son ses adversaires mhm. en matière de politique comme ni ñu koy faral di euh, jàngale ci communication ci euh, comment science politique mhm. dañ la ne l'adversaire pour mu mën a atteindre ki nga xamante moom mooy son adversaire ou son concurrent dafay des fois utiliser tous les mots yu jàpp yu mu jàpp ne lu baax la pour mu mën ko laal Mhm. parce que su boobaa kooku dafay am sa jot des fois mu tontu la. Mhm. maintenant par rapport ak lu mu wax laata ñuy dem ci li nga xamante ni moom mooy euh, li mu wax ne du priorité xam nga dëkk. Mhm. ne mbir du priorité tekkiwul ne baaxul. parce que priorité mooy ñaari mbir wala ñett yoo lay bëri tegoo. ñu ne la ñett yi dafa am boo xamante ni boobu moo mënul ñàkk ak moo jiitu moo nekk farata. Mhm. donc comme sunna ak farata donc euh, farata. Mhm. Euh, boo bu amee vraiment sunna du day mën mën na xaar daal. Mhm. donc loolu mooy li nga xamante ni moom mooy li fi am maintenant par rapport ak euh, jamono boobu mu doon wax ak balaa jamono ji. xam nga par exemple dañuy faral di wax ne les gros investissements yu Sénégal def. et malheureusement c'est on a construit ay stade mhm. defar ay terre defar ak BRT defar yul jeex mais léegi booy investir mhm. question bi ngay poser mooy la question de rentabilité économique mooy lii maa ngi ciy def ay milliards parce que ñun lu ñu lu ñu financé si ñuy infrastructure yi lu mu lu mu lu tuuti tuuti. Mhm. bu gën a moins cher trois cent euh, quatre cent milliards lay jar. léegi jëlal stade Abdoulaye Wade jëlal également lu ñu tuddee le le TER express régional ñu ngi mm. dem presque un mille milliards. mais BRT bi aussi nous a coûté au moins quatre cent dix neuf milliards. Mm cent dix neuf milliards bul fàttee dañ la ko lebal. dañ la ko lebal yow lebal boobu noonu ci terme yi nga koy fay li ngay am ci BRT bi mënoo ko boobu kese mënu ko fay. Mm-hmm. maanaam BRT mënul daw ba fay loolu ci at ci ci timing ci échéance yooyu. donc léegi puisque mënu ko fay moo tax économiste naan booy investir da ngay investir ci chantier yoo xamante ni rentabilité bi retour sur l'investissement dina mën a li nga xamante mooy mooy sa dette bi nga bi nga bi nga contracté maintenant euh, ci utilité BRT bi balaa mu si ñëw mooy communication bu mu def démb xam nga mm-hmm. boobu mooy communication institutionnelle c'est pas un politicien qui parle mm-hmm. c'est quelqu'un qui défend une institution ou bien qui agit au nom du ministère moom mooy wax mm-hmm. moom bu muy wax également ñëw leen ngeen découvrir li nga xamante ni moom la BRT bi di waaj a wane suba. yéen sénégalais yi mooy yéen passagers waxul yéen politiciens yi également. waxul na mhm. yéen waa pouvoir wala euh, wala waa beneen bor bi. Mhm. maintenant BRT am la njëriñ kenn du ko yéen kenn du ko weerante. Mhm. parce que lu gën a néew trois cent mille nit mën nañoo jógee diggante Géejawaay dem ndakaar ci noonu va et ci dox boo xamante ni dem boo xamante ni dafay gaaw. Mm-hmm. ba pare am sécurité mais am am sûreté. parce que tey li ngay fay d' abord euh, jógee euh, géejewaay pour dem ville. Mm-hmm. supposons nga jël beneen oto te ñëpp amuñu moyen pour jël taxi. Mm-hmm. léegi ñu ne la lu mu sori sori booy cinq cent ngay fay. mais boo doon jël taxi jógee géejewaay dem ville sëriñ bi di nga fay mille wala mille léegi avec 500 da ngay dem non seulement géejewaay dem ba ville d' abord. da ngay gagner en argent yaa ngi mm-hmm. économiser donc yow mi nga xam ne yaa yaay jël bus bi. deux yaa ngi gagner en temps parce que li nga doon perte temps ci arrêt. Euh, ki nga xamante ne moom par exemple yeneen bus yi bokkaate yi. Mm-hmm. doogu boo boo ci fayee sëriñ bi bëgg di nga bëgg a yegg mais doo doo doo doo yegg comme noo ko bëggee parce que ñoom dañuy taxaw chaque année ñu taxaw. Mm-hmm. donc loolu ci gagnes en temps et tu en argent. donc am na utilité. maintenant nag problème bi fan la mooy. ndax lu ñu ci investi mu toll ci quatre cent dix neuf milliards. Mhm. est-ce que ce financement là ce prêt qu'on a contracté auprès de parce que agence française de développement lebal nañu. Mhm. ak yeneen kuréel yoo xamante ni FMI ñoo ñu lebal pour ñu mën a euh, taxawal li nga xamante mooy se BRT. Mhm. mais nu les séances bi nga xamante ne moom mooy les délais bu ñu war a bu ñu impartir état wu Sénégal laa wax. pour ñu mën a fay bor yooyu est-ce que liy jóge ci BRT bi mën na ko fay. donc moo loolu mooy exactement la question qu'il faut se poser mais. pertinence wala utilité BRT moom. ak kenn dootu ko weerante utilité euh, ab Abdoulaye Wade aussi. kenn du ko weerante. Mhm. la question qu'on se pose c'est que. entre nga tabax stade. Mhm. entre nga indi BRT ak lu ñu tuddee terre. Mhm. Euh, que nit yi amuñu liggéey wala ñu xiif lan moo ci farata wala nit ñi war a am li ñu tuddee infrastructure moderne de santé yooyu boo bu tegoo. Mhm. sëriñ bi yeneen droit yi day xaar parce que dañ ne euh, les l'une des premières générations droit plutôt euh, l'une des premiers droit des droits de première génération. bokk na ci lu ñu tuddee le droit à la santé le droit à une vie. donc loolu je pense que boo bu dee nga jiital droit la santé. mënul taxaw ci kanamam maintenant euh, c'est une question d'appréciation mais nag il faut aussi ñu xam il y a ce qu'on appelle les réalités du pouvoir mhm. bu amee da ngay comprendre aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo yore nguur gi c'est-à-dire lu bëri ñu ngi ko doon wax xam nañ ne bu ñu toogee ci nguur gi mënul nekk parce que boo toogee ci biit yi mën nga wax parce que mën nga dangay am impression que ne lii nii lay demee wala mën na demee nii. Mhm. mais boo ci toogee dinga xam ne mënul demee noonu te sujet am na yoo nar a développé dinaa la wax lu tax am na yoo xamante ni mën nga yaakaar nii lay demee mais du demee noonu. parce que ni mu war a demee du da toog yak nga sa bureau def ko mais ñu koy def aussi ñooñu loolu mooy état. d'accord d'accord alors euh, moom ci biir waxam jàpp na ni ca tuut ba nga xam ne defoon na ko jàpp na ni. Euh, ngir euh, régler problème boobu il faudra développer euh, les pôles régionaux et Dakar se videra naturellement donc muy indiwaat lu jëm ci décentralisation nga xam ne à chaque fois dañ koy wax Dakar daanaka ni fi ni mu surpeuplé et puis lu jëm ba pare ci su sujet boobu noonu parfois ci critiques yi yaa ngi wax léegi ci wàllu rentabilité su nu jëlee exemple terre bi par exemple soo jëlee exemple bi chaque année dañuy mujj jëlaat xaalis bu bari di ko ci subventionné ci loo xamante ne daanaka amut euh, benn euh, xeetu euh, rentabilité bi est-ce que loolu itam du problème boo xamante ne nii moom lañ nar a jànkontelaat ak BRT bi. waaw xam nga pole yi mu wax c'est important parce que soo gisee ndakaaru xat. Mhm. te bokk na ci dëkk yi gën a tuuti mais moo ëpp nit. Mhm. question bi mooy. donc lépp la ñu indi concentré ko Dakar ça veut dire que boo ñëwee fii da ngay am impression que ne ndakaar mooy Sénégal. Mhm. parce que lu bëri war lu war a am ci région yi ci capital régional yi. Mhm. indi dañ koo mbàyyi ci Ndakaaru Njaay alul ko Dakar boo ko doon comparé ak région de Kaolack Kaolack mën na ko cinq fois wala quatre fois. Mhm. mais li am Dakar amul Kaolack. donc waa Kaolack ils sont lu nu soxla amul Kaolack ñu bàyyi ko fa ñu bàyyi Kaolack noonu. lu mm-hmm. mu rëyee. ñëw Dakar xato xat xaj xaj xajloo fii. Mm-hmm. loolu boo ko bëggee régler li ngay def d' abord mooy la création de pôle économique. Mm-hmm. point mooy zone bu ne. Kaolack dafa am dañ koy woowee nu tuddee le bassin arachidier ak euh, waa Sine ak waa Bawol. Mhm. ñu ne lii mooy le bassin arachidier ñoom gerte ak bay lii mooy seen yëf donc da ngay implanter un économique boo xamante ni dafay yëngu ci bay dafay yëngu ci transformation des production agricoles. Mhm. nga dem euh, Casamance nga installer foofu benn pole économique su boobaa waa Casamance ñoom. seen madd yooyu seen mangue yooyu jus de fruits yooyu les femmes. mën nañ def ce qu'on appelle la transformation de produits locaux et su boobaa mën nañ ko def en jus de fruits. et su boobaa camion dootul yëpp jóge Dakar parce que usine bi fii la nekk. Mhm. diggante bi mënu ko def 48 heures diggante bi également yenn produits yi ñu nëpp ñu yàqu. loolu je pense que di nga gagner en temps. Mhm. di nga gagner également en économie également di nga créer des richesses parce que les locales yu nekk ci base bi dundalaat sax yenn zones yi voilà donc dafay permettre également lu ñu tuddee les opportunités économiques que chaque zone du Sénégal mm-hmm. dafa am ses propres euh, réalité mm en termes d'opportunité économique parce que opportunité économique région Kaolack bokkul ak bu Ziguinchor mhm. mais Ziguinchor également bokkul ak bu bu Matam mhm. comme Matam bokkul ak bu bi nga xam moom mooy bu bu bu Fatick ak euh, bu Saint-Louis maintenant loolu boo ko bëggee régler boo ko defee d'abord la première question bi ngay régler mooy l'exode rural mhm. xam nga l'exode rural boo ko doon comparer ak immigration clandestine xam la moo la wutale le simple fait que kenn jëlul gaal mais conséquences même la mooy wala cause yi ñàkk la Mhm. lu ñu soxla amul suñu dëkk. dañ koy wuti. Mhm. donc dakaar mooy doon l'Europe. donc pour tous les moyens bëgg nañ liggéey mais lu ñu war a lu ñu war a pour liggéey. Mhm. amul fii yaakaar nañ mu ngi donc dañuy bàyyi suñu dëkk ñu dem Dakar. alors que yow booy xool en terme de richesse sa dëkk am na loo xamante ne Dakar amu ko parce que Dakar je bien jamono ji amul fenn fooy xool nga ne un un hectare ci ci Dakar amul. Mm-hmm. mais yenn village yenn région yi mën nga xool ba ñu naan une dizaine d'hectares ci àll yoo xamante ni boo doon bay sëriñ bi léegi léegi nga doon milliardaire. Mm-hmm. mais loolu ki koy def état mooy fexe ba loolu mu mu gën ko euh, exploiter. Mm-hmm. et maintenant euh, ci côté yooyu aussi parce que au moins l'agence nationale de statistique et la démographie daf ne euh, à Dakar ne serait que Dakar kese lu toll ci trois millions huit cent et quelques nit. ñoo fi yeew trois millions. léegi 3 millions yooyu lu ci ëpp nee na ñu ngi ci banlieue bi. Mhm. léegi banlieue bi aussi ñi ci ëpp Dakar la ñuy liggéey. donc ils sont obligés ñu dem centre ville. moo tax ñu ne la au moins BRT bi laa kese laa la waxuma la. Euh, tata yi wala yeneen moyen de transport wala terre bi. Mhm. mais BRT bi kese day transporter au moins trois cent nit par jour. Mhm. diggante dem ak dikk. parce que chaque trois minutes day daw. donc loolu li nga war a comprendre rek mooy. am na lu waroon am ci dans la dans les dans les dans la banlieue dakaroise mhm. amu fa mais mu ngi ci centre ville moo tax ñëpp ay jóge dans la banlieue pour dem Dakar mhm. léegi boo bay boo biggee maintenant régler question yooyu parce que boo ko régler su boobaa berte bi mun na am solo lool waaye du am du du ko jar bu baax parce que mhm. su boobaa ki jógee Guédiawaye mu jàpp ne lieu de travail euh, Sandaga la léegi bu mënoon am opportunité bi mu am Sandaga bu amee Guédiawaye mais Serigne dootul passé di ñëw mhm. donc rek toog à Guédiawaye mhm. moo tax j'ai regardé le le maire de Guédiawaye Mayakor euh, Golf Khadiba way si Golf Sud parce que moom BRT euh, bi dafa jaar ci Euh, ci commune mhm. et moom et ce qu'il a ce qu'il a dit en dernier c'est ça qui importe le plus mooy que ne c'est bon ñu am BRT. Mhm. mais li ñuy wuti Dakar. nañ fexe ba am ko localement. Mhm. donc il faut dans un pays qui se veut développé il faut également créer des richesses locales pour que moo mun a am li ñu tuddee des richesses globales au niveau national. Euh, polémique bi su ma koy su ma koy dégg je me demande qu'est-ce qu'on attend de El Malick mu ñëw xoos BRT bi wala mu ñëw ne le voilà léegi dañ koy dindi indiwaat fi lu fi nekkoon. non c'est ça <laughs> il ne faut pas le faire. Oui. parce l'État c'est une continuité en mm-hmm. c'est-à-dire que balaa ngay comprendre l'État c'est une continuité. ki euh, ko ki mu àndaloon. mu mm-hmm. tuddee ko l' autorité administrative le préf le gouverneur de Dakar. Euh, Alassane Sall. Mm-hmm. mais Alassane Sall Al Assane Sall. mais kooku moo doon nekk fii même Macky Sall bu muy bu muy lancé euh, février xawma ma. Mm-hmm. moom la àndal. cest à ko kooku. même tey Bassirou bu nekkuloon président tant que mu ngi nekk le gouverneur de Dakar. le futur président ou ministre buy inaugurer benn infrastructure de ce genre. kooku day taxaw donc pour dire que c'est juste une continuité. les hommes. passent, mais les institutions vont rester. Mm -hmm. Et certaines personnalités vont rester parce qu'elles ne sont pas politiques. donc loolu ngay comprendre maintenant le ministre même bu nekkoon opposant parce que moom bu di wax. Mhm. le gouverneur c'est pas l'homme politique qui l'intéresse. Mhm. le gouverneur buy ñëw accompagner ak mhm. qui parlait da doon attaquer euh, son camp adversaire mais ici c'est un ministre qui est là qui agit en tant que ministre et communication politique. d' accord alors euh, ba